aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam sëriñ uh, abdoulahat ñu ngi lay nuyu di la siyaare di nuyu mbokk yi fi fekk yëpp su ma tuddee sëñ basiru mbàkke ak uh, sëñ moodu mbàkke baara dolli nii rek tudd naa kilifa yi fi teew yëpp tudd it uh, sama xarit sëñ abo monsieur le ministre Dame Diop monsieur directeur de cabinet Diouf ak Mamadou Ibra Kane ak mbokk yi ñu fi fekk yëpp yépp yëpp yëpp ñoom ñëpp ñu ñëw ci bës bi bés bu tedd bi guddi gu tedd ji nga xam ne ku ne xam na ni ko jullit yi fonke waaye ni ko sëñ Touba fonkee ba defe naa euh, sëñ Abdou Lahad moom it taxawaayam ci yoon bi waaye taxawaayam nit ci réew mi ñun ñi nga xam ne ñoo bokk di yëngoog moom ci wetu président Macky Sall man mii yàlla di ñu boole mission yu bëri ma mën a seede taxawaayam bu baax a baax ci réew mi ci lu bëri loo xamante ne moo xam ci ay initiative am ci diine wala ay initiative am it ci lu bëri ci wàllu développement moo tax bu lu mel ni xewee nga xam ne jullit yëpp ko bokk waaye yàlla def ci histoire ci kër sëñ Touba soxna May mi nga xamante ne moo jur waajuram yàlla def ñu séddal ñu ko ko rafet na ñu ñëpp ñu teew fi looloo waral ñu teew fi di seede ci moom taxawaayam di seede ci moom pas-pasam di seede ci moom taalibeem di seede ci moom it bëgg réewam ku ne xam na ne deful sax ñetti weer jumaa jooju mu doon ubbi fële ci Touba Yamal ñun ñëpp ñu fekkee ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko fi tudd donc loolu euh, njàmbaar lay wone li muy wane it mooy fonk ndono li am ci taxawaay jël ci ay responsabilité donc sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal ni ko moo Modou waxee nga yàgg fi lool yàlla yokk kàttan bi yokk wér-gu-yaram ndaxte xam nañ ne boo fi yàggee rek liggéey bi dina gën a rafet te it taxawaay bi dina gën a rafet xam naa ne sax fii moom bu ma fi teewee sëñ Dame Diop euh, saa Diourbel moo waroon jël kàddu bi waaye <laughs> comme njëkk na ci man waaw madame Fofana moom maa koy waxal daaw ma sali ala sayyidina Muhammad jërëjëf suñu ziar caméra jëmale ko Serigne Touba Mouhamadou Bassirou Mountakha di teg ci sa loxo sëñ bi itam suñu ziar suñu nuyoo ci loxo porte parole Cheikh Mouhamadou Bassirou Abdou Khadre porte général des Mourides nekk itam suñu wëllëri teg ci sa loxo suñu ziar suñu nuyoo ak suñu xarit yi fi nekk yëpp sëriñ si yëpp soxna si yëpp di wax ne ñëw fii suñu suñu ndax dañu ñëw fii ci kër Serigne Touba di ñu fàttali lu baree bari Serigne Cheikh di teg ci sa loxo aussi suñu nuyu eh, jëmale ko ci suñu frère suñu xarit Serigne Abo eh, nekk koo xamante ni def ñu jàppale ci biir ak ci biti comme niñ waxee ci zahir ak ci baatin nekk soldaaru Serigne Touba ci sa wet rawatina nag. si loo xamante ni dafa jëm ci communication bu jëm ci màggal grand màggal de Touba maa ngi doon wax léegi suñu ñëw fii daf ñuy fàttali lu bare bari rawatina nag innovation bi nga xamante ni bi ñu tegee ci sa loxo organisation bi bi nga xamante ni pàcc boo xamante ni communication màggal bi la jëm sa esprit d'innovation moo taxoon ma ñëw fii ànd ak sama benn mag bu tudd Mamadou Ndiaye ñu def fi benn conférence publique jëmale ko ci le et la responsabilité des médias dans la société mu nekkoon thème bu am solo tey ñu ñëwaat fii ci bés bi ak guddi gu sàll bi mooy guddi laylatul xadr loolu sant la mais aussi xewal la euh, jaajëfal la itam ci boole bi ñu boole ci bés bi ak ci guddi gi ndax loolu li mu firnde mooy euh, da am yëg-yëg am yitte te da mën xarit di nga am reconnaissance comme niñ koy waxee kóllëre ci say ci say nit maa ngi ñëw nag ànd ak délégation bu tàkk ànd ak euh, soxna Aïssatou Fall bokk ci mouvement Demain c'est maintenant soxna maam Anna Diop moom tamit mi ngi toog ak euh, Abdoul Aziz Kane nekk sama frère bokk itam ci mouvement Demain c'est maintenant ak suñu rakk Malick Sock moom tamit bokk ci délégation bi ñëw daal teewe bi sëriñ bi di wax suñu kontante ak euh, wax la daal euh, jàppal ni saa yu ñu woowee dinañu taxaw taxawu la taxaw aussi ci sa kanam say am di jàmm taxaw surtout nag ci yoon bi nga xamante ni moom moo boole te ñu koy ndamoo mooy yoonu Serigne Touba léegi ci présentation bi am na ku fàttali ne Mamoud Ibra Kane journaliste effectivement lu mooy am mooy lañuy mooy li ñuy tiitaroo ndax loolu moo tax ñu nekk li ñu nekk gannaaw dogal suñu boroom di di ko sant bu baax taxawaayu journaliste boobu moo tax bi Serigne Mountakha bi ñu euh, demee ba xam ni li ko gën a yitteel ci taxawaayam tey ci yoonu Serigne Touba mooy xam-xam ñu koy mandargal université bi suñu frère Serigne Abo nañu ah Mamoudou groupe immédiat yi bu ngeen bëggee taxaw def loo xamante ni Serigne bi dina ko dina lool. ci liggéey bi mu sumb ci yoon bi bu ngeen taxawee ci université bi dina ko nekk ndax université bi lu ko soxal la keroog bi ma Serigne Abo waxee loolu ñu am chance Serigne bi recevoir ñu ñaan ko ci ndigal mu may ñu ko boole ñu ak euh, suñu xarit. suñu waajur itam Serigne Moussa Nawel boole ñu ak Cheikh Ahmad Badawi nekk recteur universitaire bi boole ñu ak porte parole am bi nga xamante ni mooy Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké ñu jaarale ñu ci yoon yi ñu war a jaar nit yi nga xamante ñoom la ñu war a diisoon waxtaan ak ñoom ba ñu defar film boo xamante ni. mën nañu jàpp ni film bu mucc ayib la ndax biñ ko tegee ci loxo sëriñ bi def ci kontaan ñu def ko ci version français def ko ci version wolof mu joxe ndigal film bi itam ñu projeté ko Masaalikul Jinaan ci Ndakaaru ñëpp wii si ñu seetaan film bi mu nekk loo xamante ni suñu contribution en tant que ci yoon bi ndax toujours damay wax ni boo nekkee journaliste wala média de manière général ñu boole la ci bés yu mel ni ak bésu màggalu Serigne Touba dañ koy jàppee chance nga taxaw ci xar ci sa tànk tubéy wane ni loolu mooy Sénégal ndax Sénégal li ko lal muy diine bi li ko lal nag mooy itam suñu nu ñuy nu ñuy toppee ñun suñu diine maanaam taarixa yi rawatina nag yoonu Serigne Touba bi nga xamante ni mooy yoon bi nga xamante ni ñun ñëpp la boole te ñu koy sante suñu borom ci yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu sant suñu bunt ci lislaam xaadim rasul ñaanal suñu waajuru sëriñ Muntaxa Bachir bu yàgg fi lool di sant yàlla bu baax ñu teewaatee fii ci bés bi muy bés bu dama doon wax sëriñ bi mën na yóbbaale sama kàddu waaye dama ci barkeeluwaat rek comme ni mu ko doon def at yi weesu Cheikh maa ngi lay nuyu di ziar bu di ziar sëriñ Abo ak kilifa yi nekk ci baas bi yëpp niñ ko daan defee saa su rek. man ak sama xarit sama doomu ndey sama seex monsieur le ministre Demba Diouf bi toog at yii yëpp moo tax tey ñu egsiwaat rek pour barkeelu bokk ak yow bés ñu ànd ci nag ak suñu njaboot ñu ngi ci gannaaw xam naa bu ñu weetee dinañ leen nuyoole sëñ bi tànk yi tànku ziar la tànku feddali kóllëre la suñu diggante ak yow ma ziar Mamadou Ibra Kane bi muy wax maa ngi naan lan laa mën a wax gannaaw moom macha allah sëriñ bi may wax kon boog tànk yi tànku ziar rek ak tànku feddali coloré suñu diggante ak yow suñu boroom boole ñu ci sëriñ bi boole ñu ci deret kon boog bés bi mën nañ jàpp ne suñu bés la moo tax saa su jotee sama xarit bi Demba. soññi ma dama bés bi ñëw na luñ jàppoon ñu bàyyi ko egsi nag ànd koog yow xanaa di la ñaanal rek sëñ bi ndax kannaaw yoon wi ñu bokk dañoo bokk aussi keppaaru président Macky Sall di la ñaanal ndax ci ñaari boor yëpp suñ borom suturaal la nga taxawee fa taxawaay mat sëkk macha allah xam nañ ci dara ndax ñoo bokk liggéey bi ci wet gii. ñoo ko bokk ci wet kële ci wàllu àdduna kon boo ñu ngi lay ñaanal taxawaay boobu yàlla yàgg li sama rakk Karim Fofana wax léegi rek monsieur le ministre yàlla guddal sa yéene yi nga am ci lislaam bi ak ci yoon yëpp nga daal am nañu mbégte am xarit bu tudd sëñ Abdou Lahad mu tudd sëñ Abdou Lahad am sëriñ bu tudd sëñ Abdou Lahad am collègue bu tudd sëñ Abdou Lahad ndax macha allah foofu yëpp matale yàlla na yàlla taxawu la di la yóbbante aussi suñu ziar ci soxna Astou di ñaan yàlla ñu yàgg ko teewee yàgg la fee fekk lépp loo xam ne nii ñaan nañ ko ci bés bi suñu borom boole ñu ko ñun ñëpp wasaare ko ci réew bi yëpp bi daal kàddu yooyu laa amoon yu ma ci muy kàddu cant kàddu ngërëm kàddu ñaan asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu nee ñu ngi leen di delloo am nuyoo ci turu Serigne Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ni yàlla dafa dogal may moom muy man nee ci jataay bii nag jataayu mbégte la ndax du jataayu tey jataayu démb la. jataay boo xam ni sëriñ daan Diop mële nga xam ni teew na fi tey ne defe naa fukki at a ngi nii lu xew Touba mook si xabdu mi ñooy ànd liggéey kon nag su fi ñëwee tey ànd ak directeur ndax ñoo daan ànd bis set di ñëw tey jii sax ñu ni ñoo seen njaboot ñoo ànd loolu lu rëy ndax nit nit lay jàpp nit du jàpp pouvoir ndax pouvoir benn rek dafa sax muy kifidul jóg di sunu borom ki fi nekkoon démb nekk fi démb ak ki fi nekk tey boo liggéey dan naan fi nekkoon rek mais kon naa ànd bépp bu yàlla tax nii rek lay mujjee waaye ànd bu leneen tax neneen lay mujjee kon jotaay bii rafet na lool sëñ daam sëñ baa lay sant ne di sant directeur Mamoun Ibrahima monsieur le ministre directeur de cabinet ne ñoom ñaar ñoo mas ci ànd di ñëw fi di tey bis moo tax sëriñ bi sëriñ bi bu baax Mamour nag li tax ma koy mujjee su waxee ci moom daf may jege trop ndax yàlla dafa dogal may buntam ci Touba. ak waa e ne bi ñu njëkkee taxaw am rajo rek bëgg a gis Serigne Mountakha ci man la ñu ñëw ma yóbbu mu ñaanal leen ca déwén sa ñu am télé am journal am site internet kon te boobu it li ko waral. fukki at ak juróom ci ginnaaw bi Alaaji Mamadou Lamine Bara xalifa général jëlee kaddu murit ak organisation màggal jox ko Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre mu jël ba cër bu mag muy communication ak culture jox ko Cheikh mu bokk ci ñi ma njëkk ñi ma féetale naa la wet gi presque ca ku nekk gis a coote gisaaw ak liggéey yu kawe yi mu ci moo tax bu fi maay Mamadou maay Mamadou ñëwee ca ñëw ci journaliste ñëw ci turu mouvement mouvement politique nee loolu sant yàlla ndax bu fekkoon leneen la duñu toog tey nee ñoom ñëpp yàllaa leen fi indi sëñ Touba ak kóllëre te nu seq ko ku mat a seqal kóllëre monsieur Abdoulaye ne ñun ba nekkee tuukaan lan tàmbalee ànd ma nag ba tey te mosuma gis ci moom lu tuuti lu ñàkk fay la yokk bëgg lu baax ak fit moom la doon ne ci waajur te loolu ci la ne sànq danoo ci bas bi naaj bi di ñëw mais benn tali bi ñëw daal ni ca ca noorandu man maa ngi naan doon ndax naaj waa ngi ñëw mu ne nan ut ndax naaj warut a dàq as gor ci naaj lay amee dara ne ci lañ defee lii bi ko defee naaj bi dem ñu des ci gerte. mais te loolu ay mandarga la ay misaal yu am solo ndax am na foo xam ne boo fa bokkee ni nga war a mel mooy jom fulla ak fay sëriñ Cheikh Gaynde Fatma li yàlla defoon ci ci jox ci fit ci ngor ak bëgg a defar yi ne islam ci yoonu sëñ Tuubaa kon ne teg nañ sama kon ku bokk ci moom war ngaa am taxawaay bu leer ci fii ci réew yi ndax ba muy taxaw taxaw fi wut bi muy samp Ablaye Wade sant bu kenn nit yombu dama ko samp ba mu nekk lim fi nekk cëy ne kon nag ñu ngi gën a am yaakaar ci moom di ko gën a jàppale di ko gën a ñaanal ba lu mu yàlla may ko ci taal. ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp salaamaaleykum.